di leen gërëm di leen sant mbokk yeeg xarit yi ñu dellu si waat euh, suñu plateau euh, di nag doore euh, émission bi ak ay jéggalu waaw ndax 11h ba 11 h vraiment xaabaabal nañu nag lu bëree bëri di leen ci jéggalu bu baax ngeen comprendre rek am ay mbir yeneen mbir moo waral loolu ba tax na kon tey ci talaata bi fukki fan ak ñaar ci weeru décembre doyen tey juum ci jour bi de. 12 décembre tey le 12 décembre mbokk yi ñu dajawaat fii comme ni ñu ko faral di defee ak suñu ay gan war a waxtaan euh, ak mais aussi ak suñu doyen Moussa Albert di ko jox mu nuyoo doyen. maa ngi lay ziar bu baax maa lay fay bu baax a baax di nuyu sister euh, Maria. Mm-hmm. di nuyu kër gi di aussi suñu invité yi. suñu invité yi ñu am tey. waaw am nañ fi ay invité nag yu am solo invité yëpp am solo benn invité jarul xel mais kenn ki. lu tax ma ne invité bu am solo dafa nekk sama sama xarit nekk sama jigéen ah dama koy sànni xeer nag fu ma toll mais sama xarit la sama jigéen la keneen ki tamit ah keneen ki tamit suñu waay la ndax euh, c'est pas la première fois muy ñëw ci plateau bi très très disponible macha allah di monsieur le maire Djibril euh, euh, Wade bu commune de Biscuiterie moom la ñu fi dalal tey ah. ak yi beneen casquette dinaa ci ñëwaat waaye tamit di fi dalal Marie Thérèse Aïda Seck ngeen xam xam ko xam ko bu baax hmm, ci parti APR xam ko tamit fële ci assemblée nationale donc ñoom ñaar la ñuy dalal hmm, honneur aux dames ma sœur dalal ak jàmm ci suñu plateau avant première de la mi-journée cette TV sax dafa mel ni yow est-ce que mos nga fi ñëw. déedéet waaw. <laughs> merci beaucoup Birama maa ngi lay remercier bu baax ci euh, invitation bi. Mm-hmm. di ma permettre tamit ma exprimer ci le contexte politique de l'heure di nuyu suñu doyen comme ni nga ko waxee di nuyu euh, sama goro bi di le maire Djibril Wade mm. ndax sama goro la ah waaw di nuyu it euh, service technique bi nga àndal yëpp ci liggéey bi ak euh, Sista Maria bi nga xamante ne moo fi nekkul moo fi nekkul waaw waaye xam naa mu ngi mm. seetaan parce que dafa dafa jël congé mm. dafa trahir cause bi jël congé yëglewul daf ko avec avec effet immédiat waaw kon ñu ngi koy xaar mu dellu soir ñu régler loolu monsieur le maire maa ngi lay ziar yow tamit. vraiment maa nuyu la gën bi di nuyu le doyen Albert di nuyu sama jigéen sama goro ay madame Seck ci rafetlu kontaan ak ci li ma bokk moom tey plateau. Mhm. di nuyu tous les téléspectateurs de la 7TV mi journée première. Mhm. mu seen yi nekk Sénégal yi nekk dans la diaspora yëpp. Mhm. ñu gis tey nag da ñëw ak sa benn casquette casquette nga ñëwee tey def ci MDW. MDW hmm? euh, daañ ci ñëw wala ma bàyyi la nga leeral ko sa MDW bi mouvement M moom xam naa mouvement lay doon. waaw M bi moom mouvement la D bi démocratique la W bi moom mooy ñaari V la euh, pour les valeurs et la vérité. pour les valeurs waaw mu tombe nag euh, ak sama initiale Mohamed Djibril Wade. loolu léegi gars yi commencé nañ ko tàmbale doyen ba ko Macron. Emmanuel Macron defee defee ba léegi ah <coughs> Emmanuel Macron EM en marche mu créé QM en marche gis nañ fi ñeneen ñu jël seen i initial ñoom tamit def ko soppar ñi ko ba mu nekk seen turu seen sigle mouvement wala seen sigle parti te maa ngi lire démb xaw ma barki démb ci journaux yi maa ngi lire ñu naan euh, les les acteurs politiques en manque d'inspiration comme ni ñuy defee Macky 2024 nangam 2024 apparemment changé wul quoi. am na solo euh, ci wàllum communication plus muy gën a gàtt mu leer tu euh, tu frappes par exemple en marche comme tu dis neex na dégg neex na comprendre bon soo waxee aussi MDV bon euh, ou APR. Euh, plus le nom est, est court et précis plus tu informe et l'essentiel mooy que euh, parti politique yi par exemple ñu liggéey bu baax sur le le le, le concept pas un travail conceptuel alors dafa laaj quand même euh, des recherches avant ngay créer parti wala ngay créer mouvement wala ngay créer association anacronyme bi lañ noonu lañ ciy tuddee il faut travailler peut-être euh, en groupe ou en focus chercher c'est c'est pas que chose que bi nga xam ne rek danga koy jël nii rek taf taf non non c'est con il faut le concevoir uh-huh. concept bi nag moom mooy jaay c'est c'est comme on dit euh, euh, c'est l'étiquette étiquette bi dafa war a am solo euh, euh, ku koy dégg moo xam ne lii euh, loolu la ëmb xam objectif bi donc dafa laaj un vraiment un travail de communication pour nga pour nga liggéey malheureusement bon comme je ma la ko waxee les parti politiques ne réfléchissent pas euh, en communication alors que bon muy euh, anacronyme bi muy turu parti bi communication moo jiitu war a jiitu lépp c'est-à-dire que da nga a am mais nga partager ak tes militants tes proches ngeen di discuter euh, par je prends l'exemple peut-être le mieux pour le Sénégal c'est Sopi. Sopi s'est battu des années des années PDS fii libéraux fii loolu c'est le cri de guerre. non, c'est le concept c'est ça qui a vendu Abdoulaye pendant des années c'était PDS c'était travaillistes c'était libéraux. mais askan askan bi voilà mu soppi mu duggee ci askan bi muy dem dem dem dem dem dem ba askan bi génn soppi et soppi ça c'est ça n'a rien à avec le concept français changement <coughs> wala transformation mais soo waxee soppi tout le monde comprend muy wolof bi muy tukkal bi muy séeréer bi bon c'est ça qui fait donc c'est pour te dire que Euh, lu am solo la ci parti politique lu am solo ci mouvement aussi. d'accord parce que pour euh, euh, dëggal yi doyen wax xam nga tur loolu lay woote bu jógee ci nit ñi jóge ci masse yi ci lay gën a accroché woo que bu jógee ci intellectuel yi. Hmm, après bi muy woote dafa ne woon pour le changement. mais changement bi. Hmm. la waa masse bi ak mag ñi nekkoon ci biir parti bi waa àll bi ne lan mooy changement am ko génne mooy soppi. ok soppi a bien accroché. d'accord beneen bi aussi mooy MZW bi defe naa ne du du c'est pas une première si ñun parce que d'abord moi j'ai un club qui s'appelle NGB mon club de football. Oui. NGB. Oui. comme PSG Paris Saint-Germain. ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie. mais NGB boobu bi muy dem élection man. municipal en 2014 moom laa jaar utiliser ko mais bokkul amul même signification yi bi bi may demee pour en élection municipale yi signification mooy ñi gëm biscuiterie yi. yaa vu le changement mais tey nag MDW bi ay xale yoo xam ne ñoo am sol casquette bind ci Mohamed Djibril Wade MDW. Ah. toppoon ma ci élection municipale yi passé hmm. moom la ñu transformé en mouvement. d'accord mais nag jox seet seet nag ndax la mën ànd ak ñun ak ban sens lañ koy jox. ngeen yokk ci yokk ci forever. voilà ok waaw kon côté boobu leer na ma sœur sa nuyoo bi gàtt na dama bëgg nga nuyoo waat yow tamit ah comme ak acteur <laughs> acteur politique nga. Mhm. acteur avec euh, à la fin. Mhm. léegi dañu toog ab diir yow tamit dégguñu la. Mhm. Hmm? gisuñu la ci plateau yi gisuñu la nga voilà nga àddu daal. yéen daal ci mbirum Sonko daal ngeen gënoon a sawar ci dem ci plateau yi. waaw mais depuis un certain temps daal danga xaw a def ab noppi. ba tout dernièrement ma déggaat la ci wàllum parrainage yi. waaw euh, merci Birama non noppiwuma sax mbirum Sonko sax àdduwuma ci. non ci ngeen gënoon a sawar jamono aji Sarr yéen ñëpp def ngeen plateau yi. non man defuma plateau pour Sonko waaw li ma wax loolu la ndax euh, par principe dama ne duma ci wax. amul benn plateau booy dugg benn télé nga gis ne wax naa ci moom. Hmm. du ma ci wax. waaw mais nag comme li nga wax rek amoon na standby effectivement parce que nit booy dem ba xamatoo fooy dem il faut nga am benn taxaw seetlu taxaw seetlu boobu nag si laa nekkoon ba gis li ma motivé waat ma jóg génn songaat la landernu politique waaw muy parrainage yi ngay wax waaw. moo la yëngal daal. waaw non yëngalu yëngaluma yëngaluma parce que bu ñu demee ba dëkk mu bëri ñu taxaw di naan dama bëgg te du ñëpp mën. oui dafa laaj ku nekk xool fan lay teg tànkam te defe naa ne devenir Sénégal ku mu ñor waxuma bëgg-bëgg nit ñi de devenir u laa wax ku mu ñor casquette yëpp dañ ko war a dëpp seet li nga xamante ne moo jaaru te mooy jëmale Sénégal kanam ñu dugg ci te avancé. waaw. je j'ai rien compris casquette yëpp dañ ko war a dëpp. ñu xool luy jëmale Sénégal kanam ñu dugg ci avancé. waaw xam nga léegi nous avons un pléthore de candidats presque ay deux cent candidats. loolu mooy démocratie. waaw mais déedéet mal mal mal mis en œuvre noonu laa koy tuddee xam nga ñii euh, ñii ñu jox démocratie ñoom togg nañ ko ma ne la pendant trois siècles chez eux ba mature ci ñu ñëw déroulé ko te buñ ko déroulé. dañu am ay courant yu ñu topp. mais bi ñuy ñëw fi fekkoon nañ fi démocratie de. Afrique dafa yàgg am démocratie. 74 passé wu ko wu ko jamonoy almaami yi sax c' était le peuple qui décidait. waaw déggoo ma xam nga le peuple a toujours décidé parce que le peuple mooy la majorité. te quand la majorité parle. c' est la voix bi nga xamante ne moom la nit ñi war a déglu. que muy buur bi que muy président bi. oui ok mais dama ne la. ñoom ñi nga xamante ne ñoo instauré la démocratie ils ont eu des courants te ñi ci ëppale courant ëppul cinq mun mënuñu ñëw wàcceel ñu ko ñun ñu ñëw fekkoon nañ fi multipartisme vers les années soixante dix quatre vingt le multipartisme était là waaw. mais ce n'était pas comme ça bu ñu demee ba toog kii nga xamante ne dafa génn jàng nekk master sax am masam sax génnal ne man yor xaalisam ne man damay nekk président mais loolu war nañu war nañu xoolaat suñu bopp bi Birama loolu du l'expression de la démocratie d'une bonne démocratie parce que nguur du caaxaante du fo. waa mais bëgg naa. bëgg naa bëgg naa ku nekk am nga sañ-sañ yëkkati sa loxo ni bëgg naa léegi nag teg nañu ay charte boo bëggee fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar foofu ngay jaar nag moom la ñuy seggee ba ñi ko remplir parfaitement ñu jàll segg tamit boobu lañ fi teg. pour n'importe kii du mun a jàll xam nga tamit moom bu ñu ko waxee am na yuy jàll am na yu ñuy baare ci kaw donc. Euh, xam nga balaa ñuy yegg foofu yëpp état dafa war a instaurer ay réformes yoo xamante ne danaan nombre de candidats yi nangam la du weesu nàngam ci élection yi. non élection bu mu mën a doon dafa war a am critère de choix ci ne yow tey jii nangami nit tey jii nangami nit euh, maanaam nangami courant comme par exemple dañu instaurer le le courant. Mhm. ne ki ne fi euh, ku bëgg am nañu juróomi courant yoo xamante ne moom lañu ñu mettre en place koo xamante ne am nga loo xamante ne da ko bëgg ci réew mi nga dem dugg fa pour ñu mën a exprimer wu. ah d'accord xam naa yow modèle bi nga bëgg. mooy modèle bi am Angleterre modèle bi am. États-Unis te terewul sax modèle boobu noonu gis nañ fi ay Tea Party gis nañ fi ay ñeneen ay ay nit yuy génn sax ni ñoom sentiruñu seen bopp ci ñaari modèle yi nga xamante ni naka jekk looloo fa amoon. xam nga li ngay sentir sa bopp li nga war a sentir sa bopp mooy li jëmale sa réew kanam mais du yow perception bi nga ci am par rapport ak yow la nga cay jëriñu wala la nga cay am wala la cay neex. xam nga yow d'accord d'accord naa li nga bëgg a wax. moom daal Marie Thérèse Aïda Seck nee na mbirum candidat yi daal sa mbaxloo bi dañ ko war a régulé ba nga xamante ni. quatre courants moo fi nekk wala cinq ku bëgg a dugg ci politique nga jaar ci courant yooyu. dugg dugg ba yegg fa nga war a yegg. waa bon sa gis-gis la dañ la koy nangul. Mm. Euh, gis nga kon ni ñu nuyoo hmm? gis nañu mouvement pour la démocratie les valeurs et la vérité MDW bu Mouhamed Djibril Wade donc euh, maa ngi lay wax sànq naan la euh, sama bëgg-bëgg mooy comme tey le douze am na procès buy am tribunal euh, ñeel wàllum Sonko ak fiche de parrainage ami mooy la ñu àtte woon ca Ziguinchor bu ma sañoon dañuy dem tribunal am nañ fa ndaw ku ñu fa nekkal ah di chroniqueur judiciaire buñ ko mënee am moom mu defal ñu le point euh, ñu xam situation bi naka la demee foofu tribunal du tey ñun après ñu continuer suñu waxtaan parce am nañ thème bu ñu war a waxtaanee waaw donc euh, mu ngi noonu waa régie bu fekkee kon euh, que ca féete ca côté tribunal faatu Diouf nekk journal Les Échos bu dee jàppandi na rek mën nañ mën ngeen ñu def siñ ñu dagg waxtaan bi dugal ko mu defal ñu le point au moins ñu xam lan moo xew du côté du tribunal de Dakar tribunal de grande instance de Dakar ñu xam lan moo fa xew kon Fatou Diouf dinañ jéem a jokkoo ak moom mais du ñu ñëw sunu thème du jour doyen parce que journaux yi gëw ma ni sax nañ am temps fuyate ko tey mais à l'occasion aussi nañ ko xool euh, ñu ñëw suñu thème du jour hein, arène politique entre manœuvre et stratégie pour une survie après 2024 comme démb loolu la ñu doon débattre ñu poursuivre ko donc euh, en attendant bu fekkee tamit journaux yi noppi na ñu survolé ko très très rapidement 11 heures 51 minutes voilà l'AS hein, sans surprise journal l'AS ñëw na ci maître Moussa Diop ah ak euh, convocation bi démb moo ne woon pare na na ku ko woo muyu mais mais woo nañ ko démb donc euh, on verra nee nañ nag fala la fanaan garde à vue maître Moussa Diop bu AG jot na donc mu ngi noonu kon euh, la justice s'emballe woolu nañ ko joxoon na ay tuuma ci wàllum euh, euh, ay permis exploration gisement de diamant loolu lépp man comme li ma waxoon démb rek laay waxaat comme tuuma yuy jóg la un peu partout dafa war a leer parce que dafa yomb trop nga génne say kayit wax say wax après ñu ne ok on passe à autre chose non no non si ça concerne la nation na leer ku nekk xam euh, lan moo ci lan moo ci nekk ci biir biir parce que te li ma ci jaaxal doyen mooy <laughs> moom accusation yi c'est pas seulement Aly Ngouille Ndiaye mais journaux yëpp Aly Ngouille Ndiaye lañuy ñuy def à côté tudd na ci ñeneen ay Mimran ay Ñaaña Ndiaye président Macky Sall tudd na ko ci mais ñoom ñëpp dañu def focus sur accusation yi jublu ko ci Aly Ngouille Ndiaye mi nekkoon ay jamono joorin bi ñu dénk wàllu mine donc euh, peut-être après nga leeral ma foofu maître Moussa Diop maître Diop dans de beaux droits ça c'est journal L'Enquête qui titre ainsi Donc, euh, Maître Moussa Diop dans de beaux draps, on verra s'il est réellement dans de beaux draps ou pas. ñu ngi koy déglu Vox Populi conduit à la sûreté urbaine Maître Moussa Diop en garde à vue ba tey le même titre à la une une autre paire de manche pour Sonko mooy tribunal de Dakar ak àtte bañ fay àtte la ñu àtte woon Ziguinchor nee nañ dañ koy àtte waa Dakar loolu le Cour suprême décidé le groupe Mimran annonce des poursuites judiciaires voilà loolu aussi c' est euh, les révélations de maître Moussa Diop ñu xool beneen kon bi maître Moussa Diop reçoit des cailloux ba tey gis nga bu dee buzz la bëggoon moom ragal <laughs> naa dina am buzz quoi parce que à la une des journaux quatre ba cinq quotidiens yëpp ñu def la à la une certainement lii pour mu amoon ko du yomb donc euh, voilà mu ngi noonu gis nañ aussi ci kaw Amadou Ba qui a été reçu par l'ancien président de la République, Abdou Diouf, à Paris. Donc, euh, euh, loolu laa jotagum seen foofu ñu xool beneen après bés bi le jour après bés le jour ban moo ci toppaat ban moo disponible libération ce que Moussa Diop a dit à la sûreté urbaine loolu tamit mooy les PV PV d'enquête yi chaque fois benn journal moo koy génne PV d'enquête chaque jour ci mbedd mi lañ koy fekk après te benn journal moo koy génne Hmm? ce PV d'enquête je pense bien que am na lu ñu donc euh, une audience décisive devant le tribunal de Dakar ce mardi Ousmane Sonko un présumé trafic et cetera maître Moussa Diop sommé de livrer ses diamants hmm? journal critique di wax ci maître Moussa Diop hmm? ak diamants yi verdict final ou prolongation judiciaire loolu Ousmane Sonko la le député Awa est de l'ex-maire de Ndiarème Limamoulaye rejoint Bougane le député Awa Sow waaw mais le député wala ex député. ex député ah oui man affaire bi jaaxal na ma parce que bi ñu nee le député la députée. Hmm. elle était députée mais elle ne l'est plus. la députée Awa Sow. savoir si assemblée bees bi amul ku tudd Awa Sow ku dëkk Guédiawaye. oui mais avec on a une photo. on a une photo. bon mais photo bi ah bon waaw reste à aussi mais yow xamoon nga benn député bu tuddoon Awa bien sûr douzième. Hmm. donc mu ngi noonu. Hmm. du douzième législature. Mm -hmm. donc maître Moussa Diop sommet de livrer ses diamants ok beneen le peuple les méga bobards de l'ex DG non lii moom vraiment <laughs> lii moom vraiment comme titre je voilà ñu di xool beneen si c'est des bobards je pense que loolu justice mën koy leeral les pépites explosives de Moussa Diop du pépite d'or de pépite de diamant Aly Ngouille ñu ngi gis aussi élection de représentativité syndicale boobu sax xoola nit ñi dañ koy fàtte ñu ngi gis Mody Guiro ci suuf bu CNTS donc gis nañu aussi Aminata Touré élection euh, représentativité centrale syndicale yi tey la ñuy jongante ñu xoolaat kan mooy féete kaw ak kan moo ci topp la jurisprudence Ousmane Sonko qu'est-ce que ça veut dire oui parce que Ousmane Sonko faisait des révélations peut-être léegi ça veut dire que keneen ku def révélation jarul ñu lay woo wala peut-être loolu la ñu bëgg a wax Khalifa Sall liste de la localité ok ñu xool beneen après l'informateur ñu xool beneen l'indépendant Sonko fixé sur son sort aujourd'hui le procureur de la République hmm? donc il lance donc euh, des poursuites bon Amadou Ba rend, rend visite une visite de courtoisie au président Abdou Diouf Boy Djiné aussi ñu koy gisaat ci suuf bon je pense que man titre yi ma ci gën a neex yëpp mooy mooy tribune quoi doyen tribune lan la waxoon démb tribune dañu woon Bougane l'avait dit xam nga newoon nañ Bougane waxoon na ko bi kon Bougane a raison comme d'habitude mais tey waa tribune waxatuñu dara ci Bougane ca jamaay te nee nañ moo ko fi njëkk wax hmm? loolu aussi il faut il faut que ñu leeral ko bu dee Bougane moo ko njëkk a wax et que Bougane avait raison maître Moussa Diop ñëw wax ko li Bougane waxoon la wax kon kon est-ce que du tamit hmm? fu ñu woowee maître mussa war nañ fa woo Bougane parce que waa tribune ba léegi ñoom génnee lu ñu fan la ko Bougane waxee mais nee nañ démb Bougane avait raison donc euh, wala maître Moussa Diop donne raison à Bougane tey daal loolu la loolu la tribune ma xool ana tribune sax tey waxul sax lu jëm ci Bougane xam lu mu bind après ces révélations maître Moussa Diop risque gros le groupe Mimran dément hmm? wax ci waxu crédit mutuel ah ba tey tribune wax na ci Ousmane Sonko lii la Ousmane Sonko fixé aujourd'hui après avoir fugué une fillette de 13 ans mise en location après ñu ñëw suuf Bougane achève Benno à Guédiawaye parfois c'est compliqué hein. Euh, euh, euh, Sonko. Bon, pour Maître Diop moom euh, il est en garde à vue. Ça veut dire que quand même en moins de de quatre de vingt-quatre heures ou même peut-être euh, en tout cas la la la machine comme journaliste yi ñu ko waxee la justice s'emballe. que il est en garde à vue que dina am euh, il va répondre à, à, la, à la à la sécurité urbaine bon maintenant euh, lu ñu mën a wax pour le moment en tout cas à mon avis c'est que l'accusation est grave que que tout mal le euh, président de la République tout mal euh, des ministres euh, tout mal aussi euh, un conseiller du président de la République tout mal Mimram bon ça fait un peu gros comme accusation elle est grave mais maintenant euh, je pense que journalistes yi aussi war nañ ci dem ndànk pour xam bon euh, quelle est la procédure qui va qui va suivre et, je pense que à ce niveau-là il faudrait que ñu bàyyi xel bon sur la procédure que qu'elle va déjà tu as dit qu'il y a un PV qui a été publié par un journal je pense qu'il faut être prudent être prudent. oui mën na ni euh, faatu Diouf faatu Diouf nee nañ ma elle en ligne faatu Diouf ma sœur bu fekkee yaa ngi ñuy dégg euh, du côté du tribunal euh, de Dakar Fatou bëggoon nañu nga defal ñu benn benn benn benn mise au point ñu xam lan moo xew foofu ca tribunal de Dakar ak lan lañ fa jot gum wax ndax séance bi ubbi na procès bi ubbi na waaw am déet bu dee yaa ngi ñuy dégg faatu Diouf. Fatou Diouf journal Les Échos allo. ci li gën a fës ci euh, li nga xamante ni moo di Sonko fii ci nga xamante ni moo di tribunal bu Ndakaaru tey suba ñëpp xam nañ ni débat yi commencé nañ waaye bi ñu commencé huit heures quelques nag ñii di nga xamante ni ñoo di avocat Ousmane Sonko ñoom la tribinal bi jox li nga xamante ni ñoo di parole bi ñoom bu ñuy plaider nag ki nga xamante ni maître mooy maître Ousseynou Fall moo njëkk a plaider mais bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni moom la maître Ousseynou Fall njëkk a plaider dañ leen di wax euh, en en bref point yi nga xamante ni mooy avocat yi jot a plaider parce que bi may génn ci salle bi léegi cinq ñoo plaider gum en attendant ces avocats la am ñoom wax nañ ci li nga xamante ni moo di terme yi nga xamante ni moo di notification wax wax nañ aussi beneen terme bi nga xamante ni moo di signification wax nañ aussi li nga xamante ni moo di terme bi ñuy naan forclusion am ñeneen ñi nga xamante ne wax nañ aussi li ñuy naan la théorie de la connaissance acquise léegi pour ñu développer leen un peu ci li ñu wax nii ci li ñuy ci ñeent terme yi ñu wax euh, loolu la ñuy ñëw def léegi nii ki nga xamante ni moo njëkk njëkk a comme ni ma leen ko waxee sànq ci samay kàddu mooy ki nga xamante ni mooy maître Ousseynou Fall maître nu Fall nag comme à son habitude euh, bu mu commencé waare dafa wax ci li nga xamante ni mooy l'acte du 19 septembre 2022 moom lañ moom lañ moom la juge tribunal juge Sibassy tribunal de Ziguinchor joxe woon euh, que Ousmane Sonko du coup eh, maître Fall dem façon na bidil li nga xamante ne moo attaqué bu mu attaqué de savoir état du Sénégal allo waaw continuer waaw demal demal vas-y. waaw. Sénégal moom il s'est posé la question l'agent judiciaire de l'État lan moo nekkoon place am ci li opposé bu jógee foofu noonu mu ne euh, État du Sénégal toujours dafa jóge foofu attaqué fi nga xamante ni moom Macky Sall lan moo tax mu initié toutes ces poursuites contre ki nga xamante ni mooy di géré wul léegi trois pour moi candidat bi nga xamante ne dañ ko écarté woon moo taxoon mu bëgg a chercher à adversaire bi nga xamante ne moo di Ousmane Sonko mu bañ a moo di jongante ndaw ci février deux mille vingt quatre am na benn avocat bi nga xamante moo di avocat Ousmane Sonko ñu koy euh, maître maître bu nga woon nag dafa posé ay questions mooy Ousseynou Fall moom dafa posé la question de savoir euh, l'agence judiciaire de l'État ak l'État du Sénégal lan mooy seen qualité à agir dans cette procédure ah, l'avocat a dit que À cet effet, l'avocat a dit que la réintégration Ousmane Sonko sur le fichier électoral ne pose aucun grief en ce qui concerne l'État du Sénégal. Sur ce point, il a dit que l'État du Sénégal daf ñoo war a wax lan moo di intérim ci la nga xamante ne moo di procédure boobu nag depuis mu jógee foofu noonu ba léegi ni mu ne l'acte bi nga xamante ne moom réintégration Ousmane Sonko bi acte bi kenn signifié wu ko ñett bi ba ñu wax ne boobu noonu kenn signifié lii tamit toujours maître Ndourane mu ne que euh, l'État du Sénégal occulte la loi et agit autrement en termes judiciaires toujours bu ñu continuer ba ci biir toujours après moom toujours maître Ndoumbé Wane moom nee na lu tax acte boobu noonu signifié wu ko Ousmane Sonko ndaxte euh, bu ñu jëlee acte bi ñu jox ko ki nga xamante ni moo di gré moo di huissier bi huissier bi dafa war a jël acte bi yóbbu ko fi nga xamante ni mooy ci Ousmane Sonko mais huissier ba mu demee euh, ba mu demee fi nga xamante ni mooy cité kër góor kër Ousmane Sonko dañ ko ne Ousmane Sonko nekk fa mu jógewaat dem fi nga xamante ni moo di hôpital bu ñu interné woon Ousmane Sonko bi mu fa demee garde bi nekk il faut nga dem mm, ci ci l'administration pénitentiaire autant pour moi ñoom ñu jox leen li nga xamante ne moo di autorisation comme ça moom mu mën a remettre li nga xamante ne mooy acte du septembre entre les mains de Ousmane Sonko mais toujours ça n'a pas été fait ce qui fait que ni ñoom avocats yi dañoo ne devant le tribunal que dans le dossier qui est déposé devant le tribunal il n'y a pas d'acte qui signifie la radiation de Ousmane Sonko toujours demaat nañ ci beneen point bi nga xamante ni mooy dañoo ne parce que dañu ne amul li nga xamante il n'y a jamais eu d'acte mooy li ma la doon wax sànq moom nee nañ am nañ benn acte li nga xamante ci biir procédure tey bi ne radié nañ ko des listes mais nee nañ d'accord nañ ne am na juste une notification juste moo am ñu demati foofu noonu ñu évoqué li nga xamante ni moo di théorie de la de la connaissance acquise bu ñu nee théorie de la connaissance acquise ñoom nee nañ ci étate du Sénégal ak ses avocats dañoo waroon a wane waroon a wane li nga xamante ni moo di preuve bi wane ne Ousmane Sonko Ismaïla Madior Fall bu mu toogee ci benn émission di naan Ousmane Sonko raje nañ ko avocat état du Sénégal dañoo wanoon wane preuve bi nga xamante ni moom preuve bu nga xamante ni mooy wane ne Ousmane Sonko seetaanoon na télé depuis son lit d'hôpital en ce moment là aussi mu gis ne Ismaïla Madior Fall mi ngi wax ci li nga moo di radiation du coup comme ils n'ont pas rendu cette preuve devant la barre de la juridiction l'avocat constitue estime que cette euh, estime que cette forclusion dont l'état fait état ne passera pas loolu la maître Ndoumbe Wane wax toujours léegi bi ñu demee toujours nee aussi laal na beneen point bi nga xamante ni moo di en ce qui concerne mooy contumace bi nga xamante ni Ousmane jugé Ousmane Sonko autant pour moi jugé woon nañ ko en chambre criminelle la la robe noire toujours estime que ne euh, le tribunal devait aussi exécuter cette décision parce que parce que moom nee na l'article 307 du code de procédure pénale dit en substance s'il est arrêté cette décision de contumace est anéantie mooy mu ñëwaat toujours wax ko ci olof mooy def dafa ne article trois cent sept du code de procédure pénale nee na parce que Ousmane Sonko biñ ko jugé en en contumace noonu kon cela veut dire décision bii ni amatul woon benn effet. C'est à cet effet-là, en guise de conclusion, que Maître, que Maître Mbouewan euh, a demandé à ce que le tribunal rende justice à Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom moom la ñu incarcéré aussi ñu mën ko réintégrer waat ci fichier électoral bi li moo fi jotoon a ruus euh, pour le moment parce que avocat yeneen yi ñu ngi commencé ñu ngi continuer aussi di def seen i plaidoirie ci kenn ki nga xamante ni moo di juge du tribunal bu bi Birama waaw Fatou. bu dee yaa ngi ñuy dégg. yaakaar yaa am nga yaakaar ni procès bi tey dina leer wala euh, ak surtout ak euh, plaidoirie yi ni mu tëddee yaakaar nga ni tey di lépp dina féete boor. Euh, lépp dina féete boor mu wax aussi que tey lépp du jeex mais comme ñi nga comme ni ma la ko faraloon bi waxee aussi tey noonu laa la koy waxee ñun ñu di tàmm di suivre procès parce que il n'est un secret pour personne que tribunal tey bu sëggee ci benn dossier quel que soit le dossier léegi day àtte bu àttee bu ko neexee day jël euh, affaire bi euh, mettre ko en délibéré c'est-à-dire mu li nga xamante ni moo di àtte bi ba beneen ay ay bët muy doog a joxe li nga xamante ne àtte bi mën na tam aussi plaidoirie yi bu jeexee tamit mu pendre pour soit des minutes wala des heures avant muy ñëw pour vider li nga xamante ni moo di affaire bi mooy li nga xam mooy li nga xamante ni moo di dossier bi li nga xamante ni moom lañ doon àtte mais en ce qui concerne toujours l' affaire Ousmane Sonko là je peux dire que ne en ce qui concerne le pool des avocats de la défense kenn mënu ko natable que ñoom aussi xaw nañoo sakkan trop ce qui fait que plaidoirie seen plaidoirie yi dina jël temps trop la nga ñëwati fi nga xamante ni mooy ce sont les avocats de l'État du Sénégal ak la l'agent judiciaire de l'État seen pool aussi sakkan na aussi foofu tam aussi ñu mën a jàpp ne balaa ñoom seeni plaidoirie yi bay pare ba yeneen di ci di ba yeneen bi ci teguwaat aussi affaire bi day day gën a durer en longueur ce qu'on peut retenir mooy juste que le tribunal peut délibérer aujourd'hui comme il peut ne pas délibérer sursoir le délibérer à une autre date waaw d' léegi Fatou bàyyi ñu bàyyi la nga delluwaat ci salle bi balaa yëf di la raw euh, dinañ la gërëm sant la bu baax di bu ñu amee beneen occasion peut-être avant ñu yëkkati suñu jotaay nga nga duggaat ci émission bi lu ko mooy rek peut-être deme soo amee temps nga ñëw ci plateau bi nga faram fàcceel ñu li nga xamante ni moo woon euh, ci journée tay bi au tribunal de Dakar. waa kay jërëjëf merci beaucoup Fatou Diouf moo doon àddu. di journaliste ah mooy ñi nga xamante ni nag ñoom la ñu féetee mooy ñi ñuy tuppee chroniqueur judiciaire ñoom euh, daanaka tribunal mooy seen mooy seen rédaction euh, moo taxoon ñu sàkku ci moom pour mu defal ñu le point ñoom xam nañ termes yi ñuy war a utiliser te bu ko avocat yi wala juge yi waxee ñoom dinañ ko mën a décortiquer am nañ benn formation en matière de droit donc euh, doyen loolu c'était juste du suñu thème suñu temu tey mais dañu bëggoon xam rek. dëggantaan tribunal de Dakar ndax yëf yi ña nga ca te apparemment ñoom euh, te procès bi door na avocat yi tàmbali nañoo jël parole plaidoirie yi commencé na te ñu am yaakaar euh, comme Ziguinchor benn journée la duré woon bien vrai que bi ñu joxee verdict bi guddi na lool bii tamit peut-être bala ñoo tëdd ci laal dañ ci am lu ñu leer. waaw normalement normalement c'est une séance euh, spéciale ensuite elle se tient en urgence. Euh, contexte bi mooy que les avocats de Ousmane Sonko bëggoon nañu ñuy euh, yee leen est-ce que Ousmane Sonko day bokk wala du bokk. Hmm. la question est simple de parrainage. voilà la la question et l'attente comme moom c'est clair pour les avocats et pour euh, leurs clients. Hmm. maintenant la justice c'est la justice on est dans une procédure euh, est-ce que dina àgg tey. ou est-ce que bu àggee dina am recours bon je pense que c'est une procédure qui peut être euh, peut s'arrêter aujourd'hui comme elle peut continuer mmh. euh, loolu moom euh, je crois que c'est important de remercier Fatou aussi c'est-à-dire que bon on est dans la partie plaidoirie mmh. ah avocat bu nekk Sonko dinañ ko taxawal état bi dinañ ko taxawal mais le plus important pour man c'est le juge mmh. d'instruction en âme et conscience qu'est-ce qu'il va décider s'il décide bah il faudra que tout le monde se plie à la décision du juge mhm. sauf que tu peux te plier et faire recours donc euh, affaire baa ngi baa ngi noonu. kon mën na jeex mën na bañ a jeex. daal je crois en tout cas température euh, politique ñu ngi ci parrainage on va vers le dépôt euh, les gens de PASTEF euh, font pression l'opinion fait pression suñu autoriser woon Ousmane Sonko au moins mu am accès au fichier mu mën a def parrainage am sa ça va une bouffée d'oxygène démocratique. d'accord ça ça c'est clair que dina tension bi dina wàcc. bon maintenant nag euh, le juge d'instruction comme ni ma la ko waxee. moom géré wul loolu quoi il gère pas les états d'âme. il gère il doit dire le droit. d'accord donc lépp kon ci juge bi la dépendre yëf yi dinañ ci am lu leer fa ma xam ne doonee benn comme ni ñu ko waxee. suñu thème du jour entre manœuvre et stratégie pour une survie après 2024 doyen loolu la ñu defoon thème démb moom laa jëlaat tey moo tax ñu dalal fi ñaari acteur politique ci manœuvre yi ñu nekkee euh, manœuvre yi gis nañu euh, Doudou Wade samp na mouvement am mouvement bi lan la wax Doudou Wade ah xam nga def fi ñëwoon semaine bi passé sama doyen boobu te bu ñu paree émission daf may lu ko neexul daf may woo ni ma wuy wax nga fii lii xam nga et puis joxaale ma ay leçon ay clé moo tax donc Djibril Wade kon euh, mouvement bi hmm, juddu na taxawal nañ ko def nañ sax seen genre du ma ni congrès mais daal am na yu ñu ciy jot a tënk dinaa ko dinaa ci liir ñaari phrase léegi nii mais lan moo tax yow PDS nga nekkoon. ba léegi ah. ba waaw ba léegi yaa ngi réclamé wu ni PDS nga nekk. bien vrai que ñi jóge woon PDS am na ñuy ñibbisi yow gisaguñu te yëgaguñu foo ñibbisee. waaw dem nga fi élection gagné nga sa gox ba léegi nee nga yaa ngi PDS te ñi la votel yàlla xam na ni xam naa PDS lañ jóge ndax foofu lañ la xamee donc mouvement bi nga samp nii MDW kon lan mooy njariñam d' abord il faut que nga nangu d' abord li nga wax léegi moom laay dindi ñi ma votel kenn xamul fa kenn xamul fan lañ jóge parce nombre de voix bi ma votel ci élection communale yi dépassé nañu le nombre de militants yi PDS am foofu d'accord loolu il faut ñu xam ko. d'accord d'abord il faut savoir que comme tu yaa ko wax léegi Doudou Wade qui est un grand frère à moi et un plus que grand frère parce que ñoo bokk ndey ak baay mais c'est mon père. ah oui ah ñoo bokk ndey ak baay. ah loolu xaw ma ko woon. Ah, bon kon léegi xam ko. et qui n'a ah, pas ah Doudou Wade moom yéen ñaar bokk ndey ak baay. waaw ah, c'est l'aîné sur le carré mais ce n'est même. waaw léegi ce n'est plus un grand frère mais c'est un père mais moom il était candidat aux

am ñeenti conseillers. mais gagné mais gagné woo. mais gagné woo ma gagné woo. waaw 2014. waaw 2014 d' accord. Et 2019 j'ai demandé à voter pour le président Macky Sall. parce que le PDS. amul woon pas de candidat. d' accord Maître Wade ne woon sax nañu xotti carte yi nañu woteel ñëpp ba mu des Macky Sall ak euh, ak euh, Madické Niang. Hmm. j'ai dit non. j' étais pas d' accord parce que pour man sama option moo doon d' abord ñi fa nekkoon candidat les cinq Macky Sall lay woteel. si Macky Sall n'était pas candidat je l'ai dit et may maître ñaa lay maître Madické ñaa lay votel parce que quand même c'est un libéral yow libéralisme mu maa la voilà après Idrissa Seck bu ñett yooyu bu ñu bu ñu nekk woon candidat nag j'allais voter euh, le candidat du PUR et j'ai été clair si ces quatre candidats là nekk du ma voter ak du ma voter parce que mm-hmm. je suis je suis un homme du système madame l'a dit tout suite je suis un homme ah. du système waaw okay. je suis du système et pour le système je suis d'accord avec le système. que le système soit maintenu soit maintenu pourquoi parce que ah, au Mali il y avait un système en Guinée dans toute l'Afrique mais le système qui est resté là faillirul amul coup d'état amul guerre civile c'est le système sénégalais. mais taxuñu avancé de. taxuñu émergé mais c'est le meilleur des pires. ñu jaaxoo ci loolu. xam boo ñamul beneen mënoo xam ne bi ma moo gën. non mais écoute je pense que par rapport à ce qu'on à ce qu'on vit en Afrique système bi nga xam ne Senghor tey mi ñu doon démb tey ñu koy yóbbu ci kaw mu bàyyi ko fi ensuite mu nekk un chrétien sëñ Fallou sëñ Babacar Sy sëñ Abdou Thierno Cellou Nourou ko moom le chrétien. aux musulmans ça il faut ñu analyser ko. oui mais parce que sañ ah Fall li mu wax dafa leer am fal falu néew ñu ko na fal Eliman président lañ ko falloo donc ay religion am. intérêt moom lu ko intéressé mooy gis-gisam ci réew mi. waaw gis-gisam ci réew mi mooy moom joxe na bénédiction à un chrétien bàyyi fi ay musulman te bi ñu euh, bi bi si la crise de 62 amee xam nañ ne que marabout yooyu yëpp pratiquement Senghor la ñu àndaloon. te ñoo nangu nañ nekk Mamadou Dia jàng na jàngaat na jàngaat na jàng na Alxuraan te aussi c'est un grand intellectuel mais les la classe maraboutique sénégalaise la classe coutumière sénégalaise moom la ñu gën a Senghor la ñu gën a jàpp Senghor moom nag léegi loo bëgg a wax parce que Senghor boobu nag hmm. moom moo instauré le multipartisme au Sénégal une ouverture bi Abdou Diouf ñëw accomplir ko Abdoulaye Wade ñëw nag xeex ko pendant vingt six ans option démocratique bi sax man mën naa ko bañ a man man sama bopp mën naa ko bañ a nangu te nanguwuma ko woon. waaw parce que man je ne pas un pays qui s'est développé sous la démocratie su fekkee yow xam nga ko nga ma ko dëkk yi fi développé yëpp te nga leen ngeen leen tudd muy Rwanda muy France muy États-Unis dictature lañu développé woo. ñoom ñëpp France y' a pas de démocratie. si léegi am na démocratie mais avant muy développé avant muy egg fi il y a eu une révolution loolu ça waaw waaw am ay parce que la dem wuti ba am accumulé peut-être que bi moo injuste ba ba mu indi révolution te ñu doog a tegu ci yoon loolu aussi il faut loolu aussi loolu aussi il faut ñu nangu ko mais un pays ba nga xam ne Afrique. c'est un pays qui est pauvre taux d'analphabétisme bi dafa dafa garaaw nit ñi seen loxo jotu seen bëgg di gannaaw xëy leen ne leen war ngeen mën tànn tànn leen on est d'accord Sénégal le Sénégal a fait cette nangu nañ ko erreur la nangu nañ ko dem nañ ci benn moom xam ne mootu ngi retourné mais au moins cette démocratie là nañ ko encadré mais tey comme li ngay wax nii de cents partis politiques parce que on fait du sentimentalisme kenn teg ko fenn de cents candidats kenn teg fenn fan lañ ko de ku mu nekk nga yëkkati sa loxo alors que en France États-Unis ñi dëkk yi ñuy wax yëpp Rwanda bi ngeen di wax yéen yéen les intellectuels mais c'est un beau pays c'est un bon pays Kagame a mais il ko diriger ak main de fer dafa dóor dafa rey ba développé dëkkam. c'est alors. mais ah, après nga wax ñu à part. waaw yaa ngi wax dafa dóor dafa rey. à démocratie non boo dindi démocratie. non parce que les mais parce que les Sénégalais une certaine liberté. ñoom ñooy toog tey bu fi Rwanda tax bu fi Kagame taxawoon tey ak Macky Sall ñu tagg ñu tagg Kagame bàyyi Macky Sall wala ñu tagg Kagame euh, euh, ba ba euh, bàyyi Ablaye Wade wala ñu tagg Kagame bàyyi Senghor alors te moom pour mu développer dëkkam il a eu on lui a laissé le temps d'abord d'être là et de travailler dañ ko dañ ko bàyyi bàyyi temps mais bu ñu mayoon Abdoulaye Wade temps mayuñu Abdou Diouf temps mayuñu Senghor temps mayuñu Macky Sall temps mais eh, eh, eh, naka la ñuy liggéey dëgg. allez dindi nga démocratie teg fi leneen. ban système nga ñuy proposé. ba ba ban système lañ posé. lañ proposé mais li xew li xew Rwanda mu daal posé li ngeen bëgg aussi chaque jour li ce que les gens disent aujourd'hui lan lañu jël il te parle du Mali il te parle du Burkina Faso les les nouveaux arrivants là loolu loolu ngeen bëgg kë que que ñu topp

et, et, et là nous notre mouvement et nous aussi nous avons pris position pour le président Macky Sall réitéré ko. waaw uh-huh. ah, ba tey nag ñu ñu ñu ñu yegg si fii ñu dem benn dialogue politique dialogue politique bi li a d'accord ak ñoom. Uh-huh. taux de parrainage bi ñu wàññi war ñu ko woon wàññi. mais bi tamit bul fàtte ni euh, bi nombre bi yéeg na. même bu yéegee ko war a yokk dañ ko war a yóbbu cent mille au lieu de trente cinq mille ça ça man loolu laa gëm parce que nag élection président de la république. c'est comme le concours général. et pourquoi waxoon ñu yokk caution bi. yow nga proposé ñaar yëpp la yokk caution bi aussi dañu ko waroon yokk ñaar yëpp la ñu yokk parce que parce que pour man et ça aussi c'est ça la vérité mooy les élections de 2019 ont été les élections les mieux organisées du Sénégal bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi. da am visibilité. du ñu sonal yi. vote bi à 6 heures c'était terminé. parce que y a que gis mais à la télévision. tu tu reconnais les gens tu tu ñuy wax après tu as une possibilité de choisir et de donc loolu moo tax aujourd'hui Sénégal dañu topp société civile bi topp nit ñi dans le populisme ku nekk def lu la neex. waaw d'accord léegi ce mouvement. après seen assemblée générale lan la ñu terminé le mouvement donne mandat au président Mohamed Djibril Wade de désigner le candidat du mouvement à la présidentielle du 25 kon foofu ngeen toll. foofu la ñu toll waaw mais man aussi bi ñu ma ko joxee dama woowaat nit ñi delloowaat leen mu am ñu am ñu def une discussion. la discussion kon yéen a ngi ci manœuvre yi yéen ngi ci manœuvre yi waaw bu la neexee nga ne manœuvre la parce que yéen a ngi yéen ngi xool kan ngeen di àndal. effectivement xam kan ngeen di àndal il faut ngeen wax ak ay nit. il faut que effectivement ça nga jox. voilà le premier processus nga joxe ñu jox la. voilà le premier processus bi ñu def mooy dañu convoqué en réunion de bureau. on était bon. plus de on plus de cinquante membres. on a donné une feuille à chacun. ne ko bindal quatre personnes différentes yi nga xam ne yaakaar nga ne war nañu diriger et les gens ont écrit. Mhm. considérant la décision de choisir man euh, maintenant un candidat parmi ceux qui répondraient à nos aspirations et à la vision du président Mohamed Djibril Wade sur sa poli sur sa vision politique euh, sa vision de jeunesse l'Assemblée souhaite une alliance parfaite entre MDW le candidat à choisir pour une alliance gagnante avec une haute considération du président dans le dispositif électoral gis nga. ay négociation ay manœuvre parce que ñoom seen candidat seen seen leader dañ ko war a considérer dañ ko war a tag-tagal képp ku muy àndal tamit àndu nawle daal maanaam ay loolu ay manœuvre la léegi Aïda Seck Aïda Seck léegi yéen waa APR li ma seetlu mooy dafa am benn camp boo xamante ni ñu ngi dajale seeni parrainage di jox Amadou Ba wala ki amadu Ba wax ni nañ ko jox parrainage am ñeneen ñoo xam dañoo dajale seeni i jox ko Abdoulaye Daouda Abdoulaye Daouda war ko jox Amadou Ba mu mel ni ba tey waa APR ba tey doyen li ngay wax moo fi ne APR bi tax ñu naan APR ba léegi ñoom ñu ngi seen logique mooy candidat wu APR la bëggoon waaye candidat Benno moo judd mais terewul ñoom ci candidat wu APR la ñuy jokkoo moom la ñuy jox seen i parrainage moom moo koy jàllale keneen ki Aïda Seck leeral ñu loolu <laughs> seen parrainage pourquoi ngeen jox ko Abdoulaye Daouda te Abdoulaye da Diallo bu dee coordonnateur APR bu département de Podor waroon dajale la nekk Podor moom indi ko mais non non waa Podor ñu ngi dajale en solo di jox diw yéen ngeen expliquer ñu kii boobu noonu schéma boobu. <coughs> xam nga du APR sax du affaire APR ak benn bokk yaakaar ndax mënoo génnee ci biir benn bokk yaakaar APR parce que mooy tirer la locomotive. ah AFP nee na moom mooy tiré la locomotive moom mooy moom mooy la tête de la locomotive. xam nga mënul nekk la tête ndax boo xoolee. tête la locomotive la tête. Ah. bu ñu nee traite locomotive mooy tête. moom mooy locomotive bi. waaw xam nga loolu seen association mais ah, benn mais ab non. mais déglu ma bi mais benn mooy tiré locomotive bi du loolu nga wax. non j'ai pas dit ça déglu ma Birama dafa ndànk ma wax la da nga ma poser question tu me laisses répondre correctement waaw ah, bu ma jaxase dama ne la. mënoo génnee APR ci biir Benno parce que c'est l'APR qui tire la locomotive de Benno de Benno dans la mesure où c'est le président Macky Sall président de l'Alliance pour la République qui le président de la de la République du Sénégal ba ñu euh, demee yow yaa ngi Benno wala nekkoo benno quand tu es un de la du président de la yaa ngi benno ok waaw d'accord continue. donc du ñu wax benno sax on dit la mouvance présidentielle. parce que benno autant c' était Idrissa Seck c' était le Rewmi c' était l'AFP c' était PIT c' était le PS ñu ne la mouvance présidentielle. de ce fait dama ne la c' pas une question de leadership. tey ji man su ma jël sama parrainage jox ko Abdoulaye Daouda parce que ba ñëwee di déclaré candidat yi man je suis sobre di reprise amoon fu ñu doon beru pour dem mhm. far yàlla def président tànn ki mu tànn on a rejoint nga ñëw génn ci mouvance boobu nga nekkoon dem di beddeeku dem di dem feneen mun ta nekk leader bi nga xamante ne moom nga ne woon moom nga àndal te moom mu jokkoo ki nga xamante ne moom la ñu tànn yow moom mooy nekk sa interlocuteur looy wax moom nga koy waxal looy def moom nga koy defal parce que nag gënuma leen xam li nekk ci biir APR ndëgam ay feuilles parrainage rek ngay soxla pour parrainer la candidat de Amadou Ba mais ñu la koy siis ah ah, ah bien sûr j'ai waaw. jox leen ma feuille damay dem wuti parrainage damay dem wuti parrainage pour le Ba mais on me dit que ndax de j'ai j'ai des gens qui sont qui sont ailleurs partout ailleurs dans dans la région de Dakar et je ne et je ne parlais même pas de, au niveau national je parlais de la région de Dakar ils me disent que on a déjà donné les les par département donc sa nit ñooñu nañu dem foofu ñu jox leen te sama nit ñooñu ànd ñu woon ak ñooñu di liggéey sur le sur le kii sur le kii terrain xam nga a problème ki joxul fooy yoo dem parrainer mais. boo ko indilee sa parrainage mun na ko bañ a jël classé ko mun na ko jël teg ko fi est nga xam nga yooyu yëpp c'est politique te euh, dëkk bi politique politicienne moo fi ëpp politique boo xamante ne nii day jëmale réew mi kanam ak ñuy xool li nga xamante ne mooy jëmale intérêt réew mi kanam man dama jox sama parrainage le président Abdoulaye Daouda Diallo parce que moom laa jàpp ne moom laa ko war a jox ndax mooy sama leader te xam naa ne bu ma ko ko joxee parrainage yi dina yegg fa mu war a yegg. mais noo def ba am parrainage ni ma def ba bi mooy ne bi ñu ñëwee ni euh, commencé affaire parrainage yi xam nga nag man même avant parrainage yi dama doon liggéey si di regrouper les frustrés <coughs> par le biais de la première dame Marième Faye Sall maa koy remercier au passage parce que tey jii lu ma am tey jii ci politique bi ci nit ak ci yëpp rek jàpp na ci moom ak le président daaw Daouda ndax sociale bi ma doon def yëpp ci moom la doon jógee ak président euh, président Abdoulaye Daouda hormis samay propres yi ma ko doon frustré yi nag au sein de la coalition benn Bokk Yaakaar dama yàgg liggéey ak ñoom di leen jàppale soit ci ay financement soit ci ay denrées yu ma première daam jox ma leen koy jox soit ci ay xaalis sax yu muy jox ñu leen koy séddale bi loolu amee comme amoon naa ci benn mbootaay bu xaw a yaatu bi loolu amee mu amit ñoo xamante ne ay femmes de développement lañ yoo xamante ne yor seen i mouvement association yoo xamante ne dañu bëggoon di ñëw jàppale président Macky Sall mais kenn xajalu la woon ubbi leen bunt amuñu woon fu ñuy jaar ba tax ñu reconnaître leen ak seen mbooloo mooy problème rek li ñuy wax ci APR seen siis boobu ñuy siis du ñu gis ne dañu war a massifier parti bi mais bu ñu gisee ko am mbooloo ñëw toujours dañuy yaakaar ne kooku dafa ñëw pour jël seen place xam nga donc si en ce sens loolu daal fii ñu yegg nii ci région de Dakar bi ci parrainage yi. mais jàpp nga ni loolu lépp bu amee affaire c'est parce que affaire kenn structuré ko na mu war mais bien sûr kenn structuré ko bu ñu koy structuré woon problème bi euh, la la question ne serait pas posée. jamono fi woon yóotu jiite les femmes de l'APR. waaw département Dakar waaw waaw. après ñu xëy suba xaw ma ku la woo ci ruq ba nga. de woowu ñu ma ci ruq de. dañoo gor samay tànk dem boole ma ak président wax loo xamante ne du du kii directoire ñun ñëpp ñu toog mu ne moom tegul reconnaître benn structure lu dul yi mu tegoon avant parti bi maanaam. waaw kay madame Badiane moo war a jiite jigéen bi yow ay de sekk dama ngeen rangé wut derrière madame Badiane ngeen dem liggéey. mais c'est ça ça s'est passé comme ça. donc amul ku jiite Dakar amul ku jiite fee benn moo fi am. benn moo fi am moom la responsable des femmes euh, ci instant boobu c'était madame Mariam Badiane elle nous a do président jox ñu ordre nañ dem boor ci ginnaaw am xam nga nit boo nekkee ci fenn di dem te gis lu doxul. sañ nga koo jooyanti man loolu laa jàpp mais suñu biir parti day jafe parce que comme ni nga ko waxee structuré wuñu te loo jóg yëkkati pour def ko ñu dem ne leneen nga si jublu wala lii nga bëgg wala lii nga bëgg te fekk ne yow da nga bëgg mu dox rek da nga bëgg mu baax parce que tamit même si nous ne sommes pas structurés nous sommes organisés loo waral ñu nekk fi ba léegi di dund moo waral tamit organisé bi mooy benn kàddoo fi am mooy bu nee nii la non du benn kàddoo fi am benn kàddu mënul am fenn parce que nit on conjugue la personne à l'imparfait donc benn kàddu mënul am le président mënut a yor benn kàddu dans la mesure où wut na ay conseil teg leen dans la mesure où senem boobu dina waxtaan ak ñoom xëy na ñoom ñoo koy bàyyi les coups de franche ko yow yaay suñu kilifa jiiteel ñu mais moom il pose toujours la débat mais si tu poses le débat ñi nga àndal ne la yow defal ñun wóolu nañ la li nga def bëgg nañ benn bokk yaakaar les grands leaders di ko wax mais du affaire benn kàddu ñoom ñoo ko jox cër bi mu joxee cër gi mu jël ko na taxawee ko. waaw. d' accord ah du kàddu. d' waaw mais daal fexe nga yow ba am sa fiche de parrainage. ah remplir nga. waaw yow loolu ma am sa fiche de parrainage ba remplir ko. xeex nga daal ba am sa fiche de parrainage. ma xeex xam nga fiche de parrainage yi c' est à la portée de tout le monde bi ma koy laaj c' était pour que ñu xam ne jël naa ci siège ba nangami parrainage pour suñu sama commune ba pare ak tamit pour la région de Dakar bi nga xamante ne dama fi am ay nit yoo xamante ne dama bëggoon ñu parrainer pour le candidat Amadou Ba mais. lii ma lii ma parrainage yooyu ma jël maa jël fiche yi dem multiplier ko mën a ñëw jox samay nit ñu pare parrainé mën a ñëw jox groupe bi ñu àndal autour de ADD dans Dakar ñu dem parrainé hmm. waaw. d'accord mais tey jii boo demoon si fiche euh, fi nga xamante ne fa la ñuy bindee ñi jël fiche yi mille yi ma jël pour sama. commune rek moo fay figurer mais la ma euh, parrainé au niveau de la région de Dakar ak ñun équipe bi ñu àndal du fa du fa parrainé parce que kenn nanguwu ma jox fiche kon sa commune li nga jot nga am mille daal sa commune. def naa daal li ma mën waaw. def nga li nga mën d'accord mm. mais ba tey manœuvre yi Aïda a Seck yow. dëkkoo Fatick côté Fatick daal. waaw léegi euh, lan ngay wut si ay grand euh, euh, Padois <laughs> non dëkkuma Fatick nag à proprement dit waaw waaw man foo tàmbalee politique bàyyi ma ma wax waxal sama yaay et les Lébou de Dakar. waaw je à Dakar à la rue angle Valmy. waaw Dakar Plateau. waaw sama papa sama maam est originaire de Saint-Louis sama maam bu góor du côté paternel. mu jóge euh, Saint-Louis ñëw liggéey si Fatick fondé fa famille. waaw c'est ça qui ah, me relie waaw c'est ça qui me relie avec Fatick. donc man je suis une Dakaroise parce que je suis à Dakar. waaw waa Yàq Jëf du yàq jëf sax euh. val mi mooy yàq jëf mais je suis née à la rue adjacente à yàq jëf 18 rue Escarfet. d'accord waaw. booy Dakar jërëjëf. Mm-hmm. Euh, doyen manœuvre yi li ma la doon wax moo ci nekk gis nga manœuvre yi tàmbali na biir APR ñoom ñu ngi ligganti fi ñu toll nii ku nekk kan mooy sa leader ak kan moo war a jiite APR ëllëg man loolu laa gis pour l'instant loolu laa gis mais moo am. kan moo war a jiite APR. waaw tàmbali nañ ci moo am. loolu nga wax moo am parce que bu ñu yoree suñu leader. di ko gunge mu ñëw ne bàyyi na rendre na tablier ndax jàmmi réew mi ah foofu nag dafa amaat beneen configuration politique te yaa ko wax nee nga nous ne sommes pas structurés comme nous ne sommes pas structurés amul kenn kuy toog di topp kenn ku nekk da ngay xool fa nga sentir sa bopp ak fa nga yëg na fa lañ la yëgee nga taxaw fa loolu mooy dëgg. moo waral tojante mbëkkante yi biir mbëkkante moom yàgg na biir hmm. APR avant li yëpp di xaw boo muy fay am sax kilifa gi mu ngi fi te mbëkkante yaa ngi fi. parce que ni nga ko waxee duma si dellu si waat mais nag bu ñu demee fii à un tournant décisif ku nekk nag di nga jeex sa sa nit ki nga mën a àndal. nga yéen daal waa APR authentique yéen da ngeen jàpp ni APR moom. Mhm. ki koy jiite moom lu ci fu leer lañ koy teg. non xam nga du fu leer lañ koy teg xam nga mënoo ñëw nga nekk ci benn système nga nekk comme par exemple ni APR authentique APR authentique c'est le parti. waaw c'est pas la république. waaw. quand le président ñëw di chercher ay compétences wala ko ko liggéeyal sénégalais bu nekk war na la mën a jël toog nga liggéeyal ko dans le gouvernement ça c'est pas le parti mmh. en ce qui concerne le parti il y des gens qui ont été là et qui ont fait toutes les guerres mmh. jusqu'à la jusqu'à notre waa man ci laa bokk à partir à partir de 2008 laa ci bokk am na ñu ma jiitu nga xamante ne ni depuis président 2008 lañ créé parti bi non dama lay dama lay expliquer am na dama la bëgg wax na ñoo xamante ne nekkoon nañoo président bien avant muy créé parti boobu parti amagul waaw boobu parti amagul waaw waaw léegi nag parti bi depuis le laa ci dugg adhéré ci d'accord yor sama carte le le le 24 juillet 2009 laa monté sama comité sama kër 2009 laa monté comité je fais des premiers responsables à monter un comité APR. <coughs> d'accord waaw ba ma koy monter comité bariwul boobu amuloon woon xëccoo ay sisante ah, ah, amul xëccoo de ba may ñëw di dugg ci biir kër yi di génn ñu naan di nga dox ba dee sa ba sa daal yi pënd te fii moom doo fi am dara. booba lii yëpp amagul woon mais comme ni ko olof waxee rek lu sotti rek am borom. lu set lu sotti am borom. waaw léegi Djibril Wade yéen Karim dafay ñëw nee nañ dafay ñëw waxaat nañu dafay ñëw. Hmm. Euh, waa PDS nee nañ ñu ngi waajal le retour de Karim. dafa mel ni waa Karim joxe na caution su ma juumul xaw ma fu mu toll ci ay parrainage mais dafa mel ni déposé ngeen caution CD CDC léegi yow mi nekk PDS ba pare ni PDS nga nekk ba léegi di ko clamer urbi orbi mu mel ni yow yaa ngi xool kan nga war a àndal alors que seen candidat bu dee yegg si na kay koo war a àndal waratul poser problème. mais nag mais nag Djibril Wade yow man li ma comprendre mooy danga bëgg ku la dàq PDS parce que li ngay def provocation la. xam nga léegi parti soxlaatoo bàyyi naa da ngay bëgg ku la dàq nga ni waaw li ma ci daj nangam nangam nekk victime mais li ngay def est-ce que bëggoo nag ku la ni Djibril Wade dàq nañ la. xam nga depuis 74 pour ne pas exagérer depuis je peux dire depuis 76 parce que j'ai fait les premières élections communales. 76. waaw dans le départ dans la région de Diourbel boobu région de Diourbel ak Louga benn région la woon. boobu le parti les partis politiques amuñu woon sax représentant dans les bureaux de vote. te boobu yaa ngi yëngu. maa ngi yëngu. nekk participé naa ci bëggoon naa nekk représentant forcé nañu pour nekk représentant dans les bureaux de vote nekkuñu ko def nañ fa ay ay action ba boobu ba 2000 amul élection bu ma participé wul wala bu ma fekk xamul nu mu demee maintenant entre 2000 et 2012 j' étais un observateur maa ngi xool maa ngi suivre le parti mais c' est pas militaire mosuma. 2000 ba Parce que d'abord, le militantisme, c'était un militantisme de sang, dans un premier temps. Ensuite, quand on a pris le pouvoir, nous de la politique, il fallait être à la base. À la base, j'ai été à ma manière et j'ai apporté ma pierre pour la consultation du parti dans le mouvement sportif et dans le mouvement 2000 associatif. 2012, hein? bah, 2000 2012. Et ça aussi, nous savons Maintenant, 2012, jeex na li ñu waroon ak Abdoulaye Wade jeex na beneen tournant moo amat le parti doit être renouvelé. yow bàyyi ko woon léegi nga ne Karim nee nañu mu ngi ñëw nee nañu nga wax. boobu ba léegi ñu waaw ñi fi ñëw ñëpp nee nañu la ñuy wax. depuis waaw léegi comme que léegi nee nañu la ñuy wax avant 2019 comme que loolu nee waaw comme que loolu nee nañu la wax. donc depuis trois ans loolu la ñuy wax te amaguñ ci leneen il faut aussi il faut ñu màndu il faut ñu màndu xool fan la ñuy teg suñu tànk donc aujourd'hui ñun aussi il faut ñu jël suñu liberté bopp parce que Sénégal lañ nekk nekkuñu France nekkuñu Qatar nekkuñu feneen. on vit les réalités sénégalaises man j'habite ñaari tali et je suis ñaari tali je partage tout avec waa ñaari tali donc man je vis ma vie avec les gens de ñaari tali les gens du Sénégal donc sama sama esprit sama position dama koy damay réfléchir par rapport à ma à ma situation actuelle. ma situation actuelle c'est la situation du Sénégal. donc du ma ko calqué ci calqué ci Karim futur sama mon jeune frère wala ma koy calqué ci keneen wala donc le parti aujourd'hui d'abord yow nekk nga dama ñu dàq ma mais le parti mënuñu ma dàq parce que pour ñu ko tàq ma ñu convoquer les instances kan moo koy convoquer est-ce que structures yi ñu ngi dox est-ce que le président Abdoulaye Wade bi nga xam ne mooy secrétaire général mu ngi joxe ay mots d'ordre est-ce que nit ñi ñu ngi koy gis est-ce que est-ce que est-ce que bëgguma donc aujourd'hui qu'on me au moins cette liberté ba ma gis lu ma xam su ma gisee lu ma xam lu leer c'est pas parce que c'est des sentiments de de de sang mais le président de la République aussi Abdoulaye Wade qui n'est plus président de la li mu war def def na ko pare léegi doom yi nag ñu war assumer leur responsabilité am na loo xam ne aussi nu moo ko nangu que les Omar Sarr les le maires Sall tous ces gens là c'est de c'est c'est c'est de mauvais gens ils sont battus def la ñu ñu war def yëpp ci parti bi mais ñoom ñëpp mënuñu am tort donc tey bu ñu toogee ba heure bi ñu naan tey lay ñëw suba lay ñëw gannaaw suba lay ñëw et cetera et kenn du la wax loo xam ne leer na sa bopp mais quand même mm. demuñu nag. demuñu fenn mais aussi on a le droit de un Sénégalais ba nga xam ne Abdoulaye Wade moo waxoon ne il veut que le libéralisme pendant cinquante ans ce Sénégalais laa nekk le président Macky Sall même si tant que amoon na problème avec le président Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade moo ne moom man moom ma dégg ko du ma mere kenn ci politique te xam nga ne Abdoulaye Wade ku musu xuloo ci politique la daan demee jubóo naa ak yow ànd naa ak yow loolu aussi loolu a xam yéen gis nga fi diggante Abdoulaye Wade ak Mbaye Jacques Diop. en 2000. Mm-hmm. ay bal ay bal génnuñu. Mm-hmm. même pas ci dix jours après. Mm-hmm. ñu ñu ñu àndaat. donc aujourd'hui pour le Sénégal mënuñu jàpp Macky Sall wala keneen wala keneen wala keneen comme des ennemis wala Sonko même comme comme des ennemis. bu dee Sénégal rek loolu jaru ko parce que Sénégal xamuñu loolu. donc tey il faut ñu lissi loo ma xam ne loo ma xam ne ñu ne un mouvement démocratique pour la vérité et ensuite ñu tenir compte des valeurs mais tey fi ñu nekk nii Sénégal. pour les élections là amul opposition ku sera nouveau candidat amul ba sera nouveau candidat ñeneen ñi Sonko keneen ak keneen ak keneen c'est des ñoom seen bopp nañu ñëwoon seen programme ñu jogante ñoom. mais am na oppo nga def ñu toll ñaari camp moo fi nekk le système et l'antisystème. loolu bëgg a perpétuer li fi nekkoon boobu ba léegi ñawoon fa woon nawoon ak ñu ni non ñun dañu bëgg lu bees. parce que boobu ba léegi. gis ñaari yooyu ñoo fi nekk non c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui bokk am place ñuy wax anti système mais ki fi woote non doucement ki fi woote anti système xam nañ ko tey mu ci ay difficultés le reste yëpp ils sont passés par le système et même celui qui a appelé à l' anti système c' est un c' est un élément du système c' est le système qui l' a fabriqué. oui mais système fabriqué la am nga droit ni dama bëgg a changer li fi nekk. mais raison de plus mais mais ñëpp bëgg ñu dara du changer. lii day si on est en train man dama bëgg ah. aujourd'hui les conclusions là euh, euh les conclusions ci dialogue politique bi man d'accord ma ci. man su ma sañoon tey tey tey tey tey dama koy dama koy changé du ma su loon man la tey ma j'ai pas parrainé parce que gëw ma parrainage fi ñu toll nii. waaw ah, loolu laa la bëggoon laaj. voilà pas parrainé. Ah. parce que tey pour man parti démocratique sénégalais Pastef euh, APR bon Benno Bokk Yaakaar ak euh, que les partis qui ont plus de treize députés ils n'ont pas besoin de parrainer. Mm. parrainage citoyen mais aussi dafa ñi nga xam ne c'est des indépendants wala ñi nga xam ne aujourd'hui. amuñu mais affaire mi fi dajale 4 de parrainage. Oh ah, entre guillemets. non je dis une chose. je dis into bracket ma commune de Biscuiterie. ñoom non da dans ma ma. foofu explicite kan. kan waaw non Birama. ki ngeen di jox parrainage yi. Ah. waaw Birama Birama là un exemple moo tax xam y a responsable de l'APR qui a dit qu'il a sorti 13 000 parrains alors que ci élection yi la a eu le l'APR a eu moins moins de 4 000 voix moom moom responsable bi et les autres responsables et Arona Coumba Ndeffène Diouf et et ji na am na 13 benn rek et puis na déposé na ko xam nga. 13000 biir commune sa commune Biscuiterie. pour te dire que système boo gis. te y en a système boo fi teg. Mhm. boo fermé wul fenêtre yëpp defaloo ko dafa loo ko bu baax baax sénégalais yi. dañu dañu dañu dañu aaye ci contourner ma chimère Birama je reçois des copies cadentées ci secours yi <laughs> et tous en reçoivent. ah ça c'est sûr. ça c'est des contourner. bien que yaa ngi fay sa ci ci ci ci ci données yi. Mhm. mais Sénégal ñu ñëpp saa yu ñu tegee dara xam nañu naka lañ koy contourner donc il faut que l'on fasse du sérieux d'accord xam nga mais nag bu ñu yombalal nit ñi. yombal opposition bi wala yombalal wala société bi yombalal nit ñi pour wax ne ñëpp war nañu mën a bokk comme ni ñu ko waxee sànq. d'accord ñëpp mënuñu bokk. ñëpp mënuñu bokk doyen. doyen sànq ba léegi yaa ngi déglu. te comme temps bi dafa gaaw tey dañoo perte lu bëri ah doyen manœuvre yi boo koy seetlu day mel ni sax yow finalement sa bopp bi tem mu explosé mais politiciens yi dañu aay quoi ñoom xoolal. yow manœuvre yi sax duggoo ci. manœuvre stratégique yi nga wax pour le sa sa titre bi ne pour le pour l'après 2024 parce que fi ñu toll nii duggoo ci mais mais li nga wax lii Birama li Maître Moussa Diop def manœuvre la ah, ah mais parce que tout le monde seul contre tous tout le monde est contre non tout le monde est contre Abdoulaye Wade nga wër Sénégal yëpp fu nekk nga bind fa AG di di wax lu la neex xëy benn jour après pouvoir boobu daanu ñu jël la jox jox jox la benn entreprise ñu ne xam avocat nga fenn mais Sénégal loolu moo fi am wanoo fi dara defoo fi dara tojoo fenn à part yow sa sa milieu professionnel la ci def pour yow la ak sa famille mais sur le plan sociologique amoo loo fi jiite loo xam ne lu nit ñi bokk la loo fi wane loo xam ne. wala social boo fi def wala loo fi loo fi def. war nga wax nga fi après ñu jël la yow. doyen gis nga Djibril War ku xëyee ni euh, finalement damay jàppale Amadou Ba parce que oui parce que ma laa wax waxoon 50 ans nangam nangam ratati rata ma bett man du ma bett personnellement. et il aura parfaitement raison de doyen. Mhm. su ma xëyee jàppale kay bu si mu bett. c'est c'est vrai que ñaar yëpp. ba tey euh, muy euh, madame Seck pour su ma xëyee su ma xëyee jàppale Idriss Seck aussi mu la bett. mais yaa ko wax. yow ah, le libéralisme avant tout avant tout ah, léegi nag yaa ngi xool. Ah, ci ci ces chevaux ces <laughs> chevaux du libéralisme là ban moo ci gën a voilà. xam nga lu ne rek ay principe da ko war a motiver lu ne lu nit di teg ci ci àdduna principe da ko da ko da ko war a motiver mais moom li wax nii principe la yow yow PDS nga nekkoon ci jamono wala. non man def yow kon après libéralisme yow. non non yooyu doxoo ci ay libéralisme. non man du question ne doxuma si. yow waat ah. yow Macky mooy sa leader. waaw Macky moo doon sama leader temps bi mu fi nekk léegi nag Abdoulaye Daouda Diallo mooy sama leader. d'accord kii ci ay courant lay dox moom. ay kii no non kii mooy dox ci ay courant mm. ay libéralisme et cetera ñoom ñu ci juddu xam ñoom c'est le sang mm. waaw ñoom dañ ci juddu mais doyen mm-hmm. cas bi compliqué na de ah non bon c'est c'est politique ah c'est-à-dire que li muy expliquer c'est que ñoom dañu choisir seen leader mooy euh, Daouda Diallo bah ça montre que euh, le choix. après président Macky Sall jëlu ko nee na Amadou Ba moo ci tane ça veut dire que ñeneen ñi moom. médiocrement passablement ah oui. c'est c'est toujours la même euh, signification c'est-à-dire que l'APS est en crise une crise de leadership mm-hmm. bon maintenant le candidat il y a un consensus Macky jàppale na Amadou Ba Benno Amadou Ba ça c'est le candidat présidentiel mais ça n'a rien à voir avec la crise du leadership qu'il y a au niveau de de l'APR que Amadou Ba n'est pas le leader de l'APR ñoom ils ont choisi leur leader c'est Daouda bah, comme d'autres kon Amadou bu yàlla dogaloon mu nekk président day créer yëfu boppam ça c'est sûr non de fait Amadou Ba a son courant il ne le dit pas mais gars yi ñu ngi commencé créer ay mouvement di rotation euh, donc c'est un problème une crise interne à l'APR loolu mooy expliquer euh, ces euh, ces problèmes de leadership maintenant beneen particularité de la l'APR c'est que euh, c'est les égoïsmes l'APR surtout détruit par les égoïsmes mm. c'est ça depuis le gouvernement l'assemblée structure boo jël ci APR y a des conflits égoïstes c'est-à-dire qu'il y a une clique qui s'est accaparée soit de la commune soit du département soit de la région c'est tout ça qui fait que Macky ne peut pas structurer son parti. parce que am na ñoo xamante ni tamit amuñu mbooloo liggéeyuñu mais ku nar a liggéey pour émerger ñu ni non kii bu émerger daf may non c'est du c'est le leadership. le le parti n'a qu'un leader. et ce leader là il quitte le pouvoir en avril. c'est c'est une crise qu'il y a de leadership. parce que Macky Sall bu nekkatul président de la République nécessairement la paix doit avoir un chef. Hmm. c'est ça qui explique ces manœuvres qui euh, de Abdoulaye Daouda Ba Aly Ngouille Ndiaye euh, Boun Abdallah il y a d'autres qui sont à l'ombre hmm. qui sont directeurs généraux. ñi son président directeur euh, généraux mais ñoom ñëpp ils savent que nécessairement après 2024 il y a une survie de la pair mmh. comment l'APR va survivre après le pouvoir de Macky ça c'est une question je pense que mooy lu mu expliquer et je trouve que c'est bien intelligent moom sa posture c'est-à-dire que je suis là je choisis a priori mon leader ca à sur le plan politique su amee une crise de partie il faut toujours euh, chercher tu re, tu ressembles à qui demain su amee peut-être euh, des primaires après 2024 mais yow fekk choisiroon nga sa camp voilà okay. ça c'est intelligent dans la crise des partis politiques ne mais pas pour... être un singleton qui euh, bon qui n'a pas de direction qui n'a pas qui de leader qui est ballotté loolu ñooñu ñoo nar a jóge à perdre dem feneen mais soo amee ton leader avant même. Euh... ah oui j'ai compris ñooñu ñoo nar a jóge APR dem feneen. mais bien sûr oui là j'ai compris. parce que ça va être une guerre de leaders. d'accord. bon maintenant pour, et pour, pour le, le cas, pour, voilà, pour le cas de pour le MD, cas de MD c'est intéressant sur le plan politique il y a, il y a le côté quand même que j'aime bien c'est euh, un, un responsable politique il faut mu am autonomie de pensée je pense que politique c'est ça la la la caractéristique d'un homme politique jaar nga ak Wade jaar nga ak PDS jaar nga ak lii ak lii ak laa mais tu penses toi-même et moom c'est vraiment l'exemple que que il s'est battu pour être maire il s'est battu pour être à la direction de mouvement associatif c'est lui qui s'est battu c'est pas le PDS. ah oui mais pour donc, am crédibilité il faut que. voilà donc su naree choisir on ne choisit pas à sa place. et même il va plus loin en disant qu'en 2012 il a euh, il est allé à contre courant de la consigne de Wade. il a voté en 2019 pour en 2019 il a voté pour Macky sa je pense que loolu sur le plan politique quand même mën nañ ci jàng lu lu bari. stratégie politique la Macky mooy président. oui mais pour Macky commune am am na yu mu soxla te dina ci jot. dina bokk ci bilan en tant que maire. waaw c'est ça la caractéristique la politique ça doit te donner la capacité de penser toi-même il faut pas être un, un, un, un mouton. moom li mu def pour man c'est c'est vraiment une valeur ah comme il l'a dit c'est c'est une valeur mais c'est une valeur démocratique c'est que nga xam na ne que lii àndoo ci waaye tu tu le montres que àndoo ci mais ça ne veut pas dire par exemple ce qu'il dit c'est intéressant aussi qu'il ne quitte pas le PDS gis nga gis nga posture boobu on rejoint son son idée de départ c'est-à-dire multipartisme lan moo ko lan moo moo tax mu mu am Sénégal Il faut qu'on se pose cette question. Hein. C'est le, le, multipartisme, c'est les égoïsmes, c'est le refus de leadership, c'est l'intérêt personnel, c'est la famille, c'est... C'est la société sénégalaise qui est comme ça c'est elle qui détruit les partis <laughs> politiques. ak leneen aussi parti bu jógee ci nguur daanu lu mat cinquante partis formé wu ci biiram. oui parce parce que da ngay seet da ngay seet poste da ngay seet poste boo xoolee PS ku nekk di bëgg a transhumé créer sa PS PDS. ñu am parti jógi foofu mais ça c'est c'est c'est plus de les deux cents partis dont on parle tout le temps lu ñu phagocyté woon ils viennent ils viennent ils viennent du PS et du PDS c'est ça c'est donc su amoon un débat sérieux ki nga xam ne PS moo am PDS moo am yow nga jóge ci PS wala nga jóge ci PDS que bëgg créer parti dañ la war a tere créer courant socialiste et démocratique voilà c'est ça l'idée de base de Senghor tu es socialiste jóge nga ci parti socialiste bu ñu indil fii beneen parti socialiste yaa xam quelle que soit ta popularité quel que soit ton ancrage. ce courant. tu restes dans le PS en tant que courant. d'accord euh, je pense que loolu quand même c'est c'est un débat de fond bon euh, maintenant malheureusement les partis politiques ne sont pas préparés à des débats contradictoires mais tant que tant que parti politique benn nit moo koy créer ni maa moom sama parti ku ma neex euh, fal ku ma neex ku ma neexul nga jóge ci parti bi di dàq ku la neex créer sa siège chaise yi chaise yi yaa ko moom ah ah maintenant beneen beneen beneen aspect non mais mais bien yëpp ci turam lay nekk apparemment. non c'est une association association yaa gën a xam ne day am président secrétaire général am trésorier te seen te seen tura fay ne. waaw mais bu dee chaise yeeg table yeeg ordinateur yi lépp ci benn. ci benn non parce que boo parce que mooy génne ah, xaalis bi waaw mais moo war ci génn xaalis bi nag bu dee lu ñëpp bokk la ku nekk da cee war a dugal sa loxo kii paye commande duñ ah. ko def nag kii paye commande wax nga ko nag c'est ça doyen yegg ñu def dernier tour de table là là où il y a des problèmes des deux côtés c'est pour euh, le maire euh, la la démocratie elle elle n'est pas répressive la la démocratie mënul ànd ak un régime répressif et en Afrique notre chance Euh, c'est que euh, à part les rois les rois ont dirigé des mains de fer euh, de nos communautés et je pense que ñun suñu chance Sénégal c'est que dañu dañu am des valeurs démocratiques donc quel que soit le régime même soo indi woon fii régime militaire tey ji Sénégalais dinañ négocier ak moom ba ba mu xam ne que la répression ça ne marche pas avec les les donc il faut nuancer pour man c'est pas c'est pas le régime dur non c'est quelqu'un qui doit régler la discipline on n'est pas discipliné. merci beaucoup. c'est comment avoir un pouvoir qui éduque qui donne l'exemple Laissez... avoir le bâton, savoir allier le bâton et la carotte. Voilà, je pense que c'est la meilleure formule. Là, là, a un problème. De, il y a un <laughs> l'autre problème pour la PR, <laughs> c'est que aussi. C'est les ben, élèves de Machiavel. Temps bi jeex na doyen. ah temps bi jeex na. est-ce que tàggool deux secondes deux secondes. abo ah jeex na. jeex na dañoo tey li ñu perte temps ah, dafa bëri 30 la ñu <laughs> commencé pratiquement. donc d'accord merci beaucoup je pense que doyen vraiment a bien systématisé. oui euh, pas pour la répression mais aussi je suis contre l'anarchie. d'accord te aujourd'hui fi ñu mën a jëm nii mun nañu yóbbu vers l'anarchie parfois aussi il faut savoir arrêter il faut savoir mais si on n'arrête pas il faut que l'État reste l'État. loolu anarchie lan ci parti politique yu bëri wala. non parti politique yu bëri. non yow bi mën nga xëy suba ni parti la nekkatul. man du ma ko def moo tax def ma ko suppu mais mais ñi fi créé parti yëpp bu naam euh, euh, Birame am mais mais gënuñu ma balaa pour créer parti. d' accord li mu am ci li mu am ci di ëppale wu ñu ma nit. d' accord mais bugguma yokk ci xar mi karaw. d' accord moo tax ma def mouvement nekk dans le parti démocratique sérieux sénégalais jël suma une certaine liberté. d' accord et di critiquer la démarche la la démarche du parti. d' accord c' est bon et xam nga parce que la démarche du parti d' abord. dans un premier temps après 2012 c' était normal. c'était un moyen de défendre Karim Wade mais ce moyen de défendre Karim Wade la loolu dépassé nañ ko ji retrouver liberté am mais au moins nañu xam naka lay diriger parti bi suñ ko xamulee. c'est bon c'est le c'est Maître Wade qui dirige il faut qu'on c'est euh, bon soutenir sans autant sortir sortir de mon parti voilà voilà le problème. d'accord maintenant on va vers des élections pré présidentielles ngay dañuy manœuvrer mais kenn mënul manœuvrer. waaw d'accord mais yàlla sax pour mu pour mu union ok pour muy pour muy indi Adama sur terre. vive les vive les manœuvres yàlla pour muy indi Adama ak Awa. waaw sur sur terre dafa waaw baax na jërëjëf kon ñu ñu lay gërëm di la sant. waaw di di di di nuyu vraiment tous les fidèles de de de cette TV. d'accord et merci beaucoup. waaw merci Birama di wax ne rek euh, des manœuvres stratégiques pour une survie après 2024 man loolu rek sax dama ko déplorer survie nga wax de. ah oui waaw loolu rek dama ko ah déplorer. survie mais bu ñu ah, survie waaw politique moo tax. waaw mais je sais. politique mooy rek dama ko mm. déplorer quand quelqu'un un leader qui se démène avoir des stratégies pour survivre damay naan dafa teggi yoonam parce que tu n'as pas besoin quand même de survivre tu besoin de vivre et de mettre en œuvre sa programme bi nga xamante ne moom nga yem pas survivre. d'accord waaw donc mais après 2024 vous savez que chamboule day waaw moo tax ma wax moo tax ma wax la li ma la wax li ma la wax sànq moo tax ma ne la bu ñu nekkee ci à une configuration du contexte politique hmm. ku nekk tu as le droit d'avoir la responsabilité de choisir d'accord madame ah, Aïda Allez di gërëm nag vraiment di sant hmm. di rafet rafetlu tam éclairage yu doyen yi ak synthèse yi nga xamante ne moom la def. vraiment di la remercier di remercier tamit sa régie bi. merci beaucoup waa régie kon euh, madame Thérèse Aïda Seck mu ngi leen di gërëm. doyen sa dernier euh, mu sa tàggoo merci à incha allah. à demain incha allah waaw mu ngoog mbokk téléspectateurs yi ba subaak ak jàmm euh, kontaan ci lool ci suñu invité yi débat bi neexoon na di leen jox dig daje ëllëg incha allah.